woowee lola la doon ñaan sa yu jullee loolu lay ñaan donc yàlla may na ko ma gis ko nag moom gis ma rek joy ndax man xam li tax mu jooy moo joy lo lan moo ko lo non loolu du ma ko wax <laughs> waaw mais tey loolu mënta ñàkk parce que yaay ak dom la euh, mais sa ki nga xamante ni di sa borom kër donc doon une personne très effacée euh, tey ñu gis mu génnee dembu euh, ben son tuddee ko validé mu mel ni jikko yi nga xamante ni moom la Dieyna Baldé lambol ci mbaax ci yar ci jikko yu baax la génn ci son boobu waa loolu la rek dama koy nuyu moom bébé damu faal mi yàlla faale ki nga xam ne moo ma sagal bàyyi fi ñëpp takk ma mhm. donc kooku aw ma fayam vraiment li mu wax ci son boobu nag dafa ma bett man xaw moo ni que sax dina ko génnee dafa jég saay rek ne ma duggal sa whatsapp ma duggu xool mooy loolu surprise donc ma koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram mhm. yàlla jubóole ñu may ñu njaboot gu barkeel incha allah mhm. lan ngay dénkaat sa moromu jigen yi nga xamanteni ñoo nekk ci milieu bi di doora dugg ci neegu sey waaw ma leen di damay ñaanal ñepp daal parce que instant mom mom amu ma conseil bu may jox leen ndax ma ngi doog dugg <laughs> donc di remercier sama nit yi nga xamante sama sœur sama xarit yi nga xamante bu ñu ñewul woon sax duma mel mhm. ndax dama leen duggal sama biir xol donc ñu ñewul ma xébaluñ ma sama bis bi depuis bobu arrêté wuñu di ma wo di ma message c'est la première fois ngay gis xew bu ay artistes def ay hôtesse man je crois mosuma ko gis ñu wàccee seen bopp xam nga jàppee ma ni seen bopp ba léegi li ñu déggante sax lu bëri mais ñoo ngi déggoo seen biir xam nga di jéem a def affaire yi mu nice mhm. vraiment aw ma seen fay yàlla na yàlla may guddoo fan ak wér gu yaram liñ ma lebal nii nañ xam ne ni que lebal nañ ma teraanga nañ. Mhm. dinañ ma ko dinaa leen ko delloo. moo ngi jàkkaarloo yow lan nga koy wax. waaw comme li ma waxoon sànq rek nee naa ko merci beaucoup mon su ma waxee euh, juum donc man lay remercier bu baax a baax yàlla may la gudd fan ak wér gu yaram yàlla na yem bi oyof tamit ndax xam naa ni man ku diis laa. <laughs> merci beaucoup merci macha allah.

ci ngénte gi sa ngénteel mu tudde ko yaayu gini muy sagal fay pourtant sagal fay barkala macha allah ku ne xam ko mu nekkoon président association des voix Sénégal ji bi mii nekk xale bu yaru nekk xale bu baax ndax bi nga xamee yàlla dogal na. Nanti berapa nih? ma leen di wan nag les premières images ci mariage bi nga xamante ni tay jii la war am fii muy ki nga xamante ni mooy kii naa ma ne Ara. Ah. Yala udi support. Ah. Ai jala udi. Sa bulugu. D'accord, ration bi dina ko dite. Mais seen lii nag lii nag lii nag tey xam naa lii nag moom def nañ ci def nañ ci def nañ ci def nañ ci alal bu takku. Lii yow 10 millions la. 10 millions. pour ante bi kese. donc nanu avancé nank nanu avancé nank jël jël jël jël kii bi jël entrée bi mais ça lii mooy oh xool bi suuf génn naa tuuti réseaux sociaux foo dem photo yi nga fekk c'est de l'amour ça ça de ça c'est de l'amour lii lii man lii moom mooy ah lii entre gars ñu dox en quoi est-ce que dugg ci biir xol ñu dox rek DM maintenant c'est c'est madame Pala Ah ouais, on va là. Regardez, il devrait pas les bouches, mais il On met tout le balde dans le benn table 500 000. les comptes ñaata table moo benn table léegi muy 1 million. 1 million 500. 2 millions. 2 millions 500. mais seen bu ñu dugg foofu xaw dama bëgg ñu tourné nii tourné booy. nii nii xoolal lii. walla si bii nii walla si bii deuxième bi fii. voilà ci li mën a wan internet yi lay seetaan mais lii lii lamp yi tàkk ci biir la wala lii courant la wala man lu doon nii. waaw non mais sondal la mais courant courant la.

Hah? habis tahun ya? Bayar solo eh,